Fatou Sognane vraiment eh, dama am ay regret li may njëkk a def tey mooy baalu la àq baalu la àq parce que tout simplement eh, soxna su baax nga soxna su baax nga te sama xarit nga coono yi ngay daj fii ci kër gi yépp gis naa ko Euh, jamilatu yi mu lay def di la provoquer di la gaaruwaale di la sànni traak yëpp yëg naa ko doom nag yàlla buur bi moo koy joxe dëgg la sëy nañu amoo bant amagunoo bant mais yàlla ndogalam la te lu jot yomb Euh, man fi ma ne sama àddina bi metti na ndax dama yaakaar ni jàmm ji ngeen nekkee woon bu ma la takkalee wujj c'était pour que jàmm ji yokk mais pas que situation bi je regrette c'est dommage maa ngi lay baalu àq bu baax a baax ndax xam naa ni vraiment li ngay vivre yëg naa ko euh, man xam naa ni bis bu ma amee yow taqandeer doom ju baax lay doon doom ju yiw lay doon doom lay doon joo xam ne àdduna bépp nañ ko dégg parce que danga maa muñal danga maa déggal te danga maa bëgg mais yàlla mooy dogal mooy def lu ko neex te yàlla bu defee lu ko neex ñun jaam bi loolu dañoo war a neex en maa ngi lay jégalu bu baax a baax te di la wax muñal incha allah eh, yàlla noppi na doom ndeem yàlla rek moo ko joxe man biir naa ni dinga nga ma jural doom ju àddina bépp di dégg maintenant eh, digoon naa la takku dënn am na lu may yaakaar fii ak suuf bu ci jotee incha allah je une belle surprise loo xam ne sama diggante maag yow lay doon. yàlla baax na. Alaaji kontaan naa li nga wax yépp te naa ko waaye nag euh, su ma la waxee ne awma lu ma naqari ma dëgg waaye nag dafa fekk ne li nga wax it dëgg la doom moom yàlla moo koy joxe ndax man su ma sañoo man maa lay njëkk a jox takkandeer mais nag mbiru suñu boroom la yàlla moom mooy dogal te jaam moom su bëggee nokkol dafay nangu ndogal te it comme te it réccu nga tamit xam nga ne li nga ma waxoon ak li nga def it bokkul kon nag duma mën rekk lu dul daal di lay nangul loolu wante nag alaaji bëggoon naa nga def taxaw seetlu ndaxte yow Jamila dépense yi ngay dépense ci moom yépp dégg naa ko te alaaji xëy na ëmb ma de waaye ñi ma gis ñi ëmb ak Jamila mii ni muy doxalee ëmb mi diamétralement opposé maa ami mooy sa aawo am ngeen doom est-ce que li nga doon li ngay dépense ci Jamila mii doon nga ko dépense ci maa ami mais lan moo tax mënoo laaj Jamila preuve alaaji fi réew mi tool nga xam ne technologie bi avancé na Jamila bu jógee laaj la xaalis bu bari nga xëpp ko ko te indilu la benn échographie indilu la benn analise bu mën a wone ne lii kat am nga certitude ko ne moom dafa nekk en état de grossesse technologie bi avancé na de telle sorte que semaine bi. bi nga ëmb sax dañ la koy wax boo xefee sax ñu wax la jour bi bébé bi di juddu mais ak loolu yépp Jamila tegu ci lenn lu dul bu jógee rekk di la laaj xaalis nga ko koy xëpp parce que nee na dafa ëmb alaaji nag wax nga ko sànq ci say biir yi wax sama xarit nga kon nag am na yoo xam ne dama la cee war a yee su ma sañoon Jamila nga laaj ko ay preuve bala ngay jël sa xaalis yépp di ko xëpp ci moom te tegalu la benn preuve bu leer. tu as raison nga dëgg je vais dinaa tàmbali samay investigation c'est vrai la technologie a avancé am na yu bëri yoo xam ne mën nga ko contrôler xam ko Je vais mes investigations, Inch'Allah. Papi Ah voilà, juste là. Pardon. Ça va Ça va. Euh, sa <clears throat> échographie bi bi nga defoon ana moom nga échographie. xam nga li échographie. yow waxoo keroog ni def nga écho. bon ok léegi xam naa ni euh, il faudra que nga dem ci cabinet docteur Ndiaye mu defal la échographie. kuy docteur Ndiaye. docteur Ndiaye c'est un échographe ko xam fii ci dëkk bi cabinet ma ngi en ville. non man defuma écho de. lu tax doo def écho. man kenn waruma suivre maa war a suivre sama bopp. yoo xam nga li ngay wax mais yow échographie c'est extrêmement important échographie danay permettre ñu xam ban état nga toll xam ndax góor nga am xam ndax jigéen nga am xam ndax ay seex nga am mais loolu c'est fondamental nga naan man maa école sama bopp foo ba see gis loolu yow da ngaa xam dara ci écho ba nga naan maa école sama bopp. man duma def écho yoo gis nga bis boo fi jéemee ba yóbbu ma hôpital. machine benn hôpital bi yëpp a nar a lakk ba jeex parce que man li nekk sama biir bii kenn waru koo gis man may sama médecin wu bopp may sama sage-femme bopp may defal sama bopp écho may defal sama bopp ay visite même bu may accoucher sax may accoucher sama bopp. eh arrête ton cinéma commence à me les mettre lan mooy man may visite sama bopp maa ngi li ma daal maa koy gisal sama bopp loolu mooy lan du nga def encore dem seeti sama waa ji ñëw eh, wax ak moom naan ko daggal garab yi nekk ci buntu kër gi yëpp garab yi dama koy dagg parce que day yàq do décor bi nga xamante ne war naa kaa def ci sama xew. ah garab yi ku ko dagg di nga ko digaale ak man. j'y tiens carrément parce que dafa bokk ci cadre environnement bi yoo xam nga lan na tu commence à me les mettre tu commences à me les mettre sonal nga ma voilà di nga dem nag défi échographie ci cabinet docteur Ndiaye par A ou par B. papi demuma man may suivre sama bopp. lépp lu nekk ci sama biir bi maa yi ni jàkkaaroo moom di ko gis bàyyi ma may suivre sama bopp. mais kii dafa dofa la dooma man médecin waruma tiim warta gis li ci sama biir bi. mais kii quel son problème yow est-ce que nga nit nga yow rab nga wala jinne nga wala dëmm nga wala yow loo doon yow lan la may wax nga naa ma demoo. tu vas partir par la force mu neex na bu naqari la et puis nag xam nga lan la yow tu commences à me les mettre je commence en avoir dama sonn dama tay dama dam parce que sonal nga ma voilà sonal nga ma trop te nag à partir d'aujourd'hui na la leer ni engagé tooma say responsabilité nekkatu samay loxo sa ëmb bi sama yoon nekkatu comme que bañ ngaa dem defi écho gàddel say responsabilité yow la engagé bu ma woo ci dara lu la dal je ne suis pas responsable na leer kan mooy fooy xel boo ma nettee da ngay fooy sa xel ma ko waxatee ma doq la tu es impoli mbésil réew bu bëgg a dee waaye yow xamadi amoo yar amoo teggin waaye tu vas assumer tes responsabilités tu vas le regretter la woon ni man du ma sama bopp sa borom am démb am jeex na pare nga naa ci yow pare naa ci yow amati ndaay ma la daal xam nga lu ma indi woon ci seen kër gi. Mm. Jamila daal la ma doon wër fan yi yëpp ci dëkk bi. fu ma tourné ñu naan ma jamilaa ngi lay wër Jamila ngi lay wër topp sama téléphone bi di sonné rek ma ne woon tey naa ñëw xool ko ba xam lan la may doyee ma wuy si ko. Mm-hmm. mu ngi noonu ci saal bi daal la ma teg du wax waxi dof yoo xam ne. nee na sax dafa ëmb. <laughs> ci li mu wax ëmb. boo xamante ni nee na mi ngi soog a ëmb ba àddunay baax ëmb dañ ko daan nëbb. léegi nag nee dafa ëmb ngénte li ak programme beeg bilan bi ci lañu war a wax programme ngénte loolu gis nga penda gisa Jamila doful dafa réew ba dof ëmb boo xamante ne nee nga da ëmb ngay programme ngénte naan ma ay xew bi lii bëgg ñu defar moom daal ay defal ma bilan wax waxi yu nekk wax na ma ko Jamila nee naa leen doful Jamila dafa réew ba dafa dof non non doful Jamila sama waxi dem mooy sama waxi tey dafa réew parce que Jamila man mënu ma ko toog yow sax yow yow Penda yow ëmb sax yow xanaa bala nga kaa bala ngay programme ngénte loo xam ne fii ak neuf mois lañ koy xaar nga xaar ba ëmb sax mooy yow ëmb goo salaamaaleykum ëmb maaleykum salaam di organiser ay xew looloo ma jaaxal Jamila reewandeem gi may wax chaque jour mu koy gën a firnde. moom biir bi sax daa feeñagul. ah parce que mi ngi doog ëmb ñun ëmb bi démb lañ ko yëg. Ah. ëmb bu ñuy yëg démb démb te moom démb lañu ko wax ba pare wëlbatiku di programme ay ngénte kii dafa réew xam tax moom la dafa réew. Jamila bul dafa mel ni daf ñuy utiliser ndax su bëggee am ci yow dara dina nekk nit ànd ak posé ànd ak dal ba am li mu bëgg su paree moom daal xam nga lan laa selu ci moom bëggul kër gi am jàmm bu gisee kër gi xaw a calmé wu am jàmm tuuti rek mu ne xaaral ma provoqué kenn tooñ ko. baax na. dinaa ko suul du ma ci sax debaa ndax li ma wax yëpp waxi dof la mais nag jàpp leen ni wérul yow mii nag naan doful day reewantalu yow sax yaa ngi may bëgg a jaaxal kii ku ko xool xam ni wérul dafa dof ah gis nga leen de naa la ko wax gisa wax yii mu la wax ci biir saal fàtte ko foofu gas ko ba mu xóot nga suul ko ndax kii dafa réew baax na jàppe ko nit man maa ngi dem xam leen dafa dof daal wérul de Alaaji tey nag dama laa seesi woon pour ñu waxtaan Alaaji man dama am problème. ok sama location bi dama am ay arriéré. arriéré waaw. mat na nag quatre cent mille francs. quatre cent mille. waaw man naa ñëw wax la ko. Ah. ne lu lu lu lu mu xam lay wut lu mu xam lay toogaay bi maag yow moo moo moo moo ëpp bopp moo tax muy romb romb lu pareegul dañuy wax bon euh, Tutu il temps qu'on se dise la vérité xam nga yow tu ma petite sœur mais am na hymne national au Sénégal, pinchez tous vos frappez les balafons, dafa doy waar kii xamoo kii man kii xaw ma rab la xaw ma ko yàlla indi donc je disais tout il est temps qu'on se dise vérité parce que yow c'est ma petite mm-hmm. mais arriéré 500000 xaw ma 400000 bu la dalee yaa ko teg sa bopp. ni mais Toutou tu es sa jëkkër wax dëgg yàlla di nit ku baax mais yow ak say caprice nga indil ko problème. guddee bëccëg subaa ngoon may wax nga génn kër ga ne way logement ngay jël parce que nangam nangam dem bàyyi ko fa dem wut sa logement maa ngi doon bëgg wax ak yow ci loolu parce que loolu c'est pas normal tu ne dois pas le faire. loolu non seulement baaxul ci sa der. alaaji non non non nañu wax. alaaji man li ma nekk yëpp yow yaa ma ko teg. man yaa ma ko teg yow kay. nan laa la ko tegee. kër gi nga jël duy ko ba mu fees dell te kër gi yow dong moomoo sama wàll la ngi ci. kër gi moom fi mu ne maa ko moom di. da nga koo fàtte noo ko moomee mais kër gi li fi am léegi maa ko fi def kër gi fii la yemoon lii lépp maa ko tabax. sama xaalis de toute façon sama bàyyi moom. ma ne damaa bëgg nga déglu. yow fin du mois bu ne la ma la daan jox foo ko dugal. loolu boo ko calculé tey jii boo ko génnee ci li nga yore amatoo fi dara. xaalis bi yaa ma ko doon may. may may kay daa mu sa bokk ci miraas. loolu di versement. waaye wuy ma de toute façon man dinaa buub samay bagage ñëw ñëw fan. fii ci kër gi ndax sama wàll sama kër bàyyi la. amatoo fi wàll. waaw ah, baax na. mani la ma la doon jox fin du ah, mois bu ne. waxal leneen mani lekk na sa wàll. ay la ma la daan jox. la ma daan jox rek ma ko daan may. demal dellu sa kër borom kër mooy dëgg. mani la loolu yi nga may wax ba ma génnee ba nga ko war a réglé réglé woo ko. nga te bàyyi tey ba ma am problème ñëw di la ko wax ngay soog a wax sa borom kër ak sa nangam. ok lii lépp waxoon nañ ma ko ci. Hmm. waxoon nañ ma ko. baax na dama lay wax. Hmm. fii doo fi ñëw ah. bañ a ñëw. wax naa la ko nag da dëgër bopp te da ngaa réew waaye yow bëgg bëgg bëgg bëgg waaye ma ah xew bu am nga taxaw programme bu am ñu def la parrain def la marraine xaw ma marraine sax laa war a wax ah ah wër di jaay jom jom ba ñaaw ah. moo tax tey yaa ngi nii tu as des may wax nga naan ma fii miiras nañu ko ba nopp fii fii mbir mi miiras naa ko calculé naa woo naa samay expert woo naa samay imam waxtaan nañu nee nañ ma kër gi dans le légalités man maa ko moom waaw waaw boo ñëwee nag fi nga may fekk incha papa. waaw man ne daa am lu ma la bëggoon wax. che xam nga lu ma bëgg toujours yi nga may def fekk moo toog sama concentration jàpp sama njàmbur nga ñëw bëgg ma maa déconcentré Mariama bàyyi li nga nekkee. fii kër gi li nga fi wax jaru ko man je règle la situation kër gi sama kër la soxna yi samay soxna nañu xam naa ni may réglé mbir mi. donc jarul nga may nettali ay jamilu tu defati lii wala defati yooyu baax na quoi doy na j'en ai marre je suis fatigué dama concentré woon yaa ngi may déconcentré ma yokk stress ah non. papa du li nga foog loolu laa lay wax de. ah bon. neneen laa lay wax da sa njariñ la. lu mel lan. Ah, kër gi damaa seetlu. Hmm. xam nga yow fi yendu da ngay xëy liggéey maa fi ne. way sa jabar yi. Hmm. ku ci aye dangay def dangay am loo def ci lekk bi. lu ñuy def ci sama lekk. c'est-à-dire. saafara yoo xamante ne boo ko ibbee xet gi lay njëkk a dugg loolu la wis sa lekk bi. ay saafara la ñuy wis ci li may añ man li ñu ma tibal. te loolu moom xam naa ni àndul ak santé. àndul ak santé kay. baaxul moo tax ma ñëw di la ko wax. loolu kan moo koy def ci ñoom. ñoom ñëpp ba ci sama yaay bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp. te loolu baaxul ci yow baaxul ci sa femme. dëgg la baaxul man la maa rey. des fois damay am ay biir maux de ventre léeg-léeg ma toog sama biir bi naan ok merci merci beaucoup ma fille kontaan naa yow de wax dëgg yàlla wane nga ni sama xarit nga te li wolof naan doom ju góor yaay ja waaye doom ju jigéen baay ba wane nga ni mën nga faral te it nag li ma gën a neex ci yow mooy ba ma la laajee mënoon nga maa wax ni diw ak diw ak diw loo sa waaye sama yaay bokku ci waaye sa yaay na mu ca bokkee ca ñoom ñëpp danga nga koo waxee noonu sans par parloo merci kontaan naa sama xol set na ci yow. jërëjëf je vais prendre toutes les dispositions kontaan naa ci yow jërëjëf waaw wax dëgg yàlla merci encore ju baax nii lay def jërëjëf allahu ke jot jop buri ci loo ma samba yas gis jàmm kott sama de <laughs> ñi xamuñu ma sax ñi xamunu ma ñii buñ ma xamoon am na yoo xam ne duñ ko def parce que man Alboury sama maam man xamadi ku mel yaayee sama baay man ah man ba may jóg booba jógagu leen ba may xew-xew leen ba may téye téyewu leen man mun leen maa daan xale may suuru waaye ma nga may daan ku ma lekk dee ku ma naan man di ku ma rey génn réew parce que seen parent na seen parent toj so mbeewa ŋati koɗo rawandu hersi so mbeewa ŋati koɗo rawandu hersi xam xamuleen ma bu ngeen ma xamoon man alaaji du ngeen ma fexeen boobu ba léegi yéen a seen plan saa yu defaree rek mu tat ci yow laa doon dem si. yow la ma tax nga mën a fen. waaw Jamila yow ko wax dafa mën a fen. yow yow lu sa yoon ci samay écho. yow Jamila du nee nga dangaa biir te wóolu nga sa bopp kon wax écho waru laa tiita. nangu nga ne yaa ko wax. yow lu ma wax xam nga lan nga war a bàyyi fen boo tëddee sa jëkkër di ko fen rek gis nga waxu guddi day rey góor. te yow dangaa dëkk rek sa noppi dëkkër ji rek lu fi am nga wax gis nga yow sa écho sama écho ak sama analyse sa yoon nekku ci waaye nag xam naa li la naqari trois ans de mariage ëmb bu yàqu sax mosoo ko am looloo la naqari ba tax na bu sa jëkkër tëddee nga sëgg ci noppam yi Jamila na def écho Jamila na def analyse sa yoon niwu ci maa ëmb te dama koy jur ci jàmm ak salaam yow ñëpp ma yéen sama ëmb bi saf yow bi ma ëmbee ba tey yaa ngi raf-raf sa xol bi di kolobaan tilleen ngay ñax-ñaxi di bëgg dee gëmal yàlla man maa ëmb man la yàlla may ëmb man maa ëmb te doom ji dama koy jur ci jàmm at salaam damaa bëgg na nga maanu ci samay écho at samay analyse dégg nga ma nga gis nga Jamila xam nga lu ma la bëgg xamal gis nga trois ans de yooyu nga wax amul problème gëm naa yàlla xam na ne ndogal la te bis ma ko waree am rek dinaa ko am waaye du ma ko foqati comme yow ni nga koy foqatee Jamila wóolu nga sa bopp ci li nga wax kon yow looy rëppi rëppi ndax écho. damaa bëgg nga régler te maanu ci man te génn ci sama ëmb bi dégg nga li ma la ka nga réglé nag sa fen kat sa fen yi. ko bi yaay koy def. yow yaa de koy def ngay dund ngay dee. yow yow yaa mën a dund ba mu waxee dama def ko xam nga ne dama mën a dund. bi. ça va ça va ça va si. ani waa kër gi ñu ngi ci biir. waa kër gi nekkunu fi. lu xew ba jàmm la. Euh, soxna si sa laaj daa bëri. yow dafa jot ma wax ak yow sama kër gi ci jàmm laa newoon waaye seetlu naa ne bi fii dugg jamono yi yëpp daal la sama kër gi tàmbalee rek ba pare dafa am loo xam ne yëg naa ko muy sa jëf-jëf. faatu soñaan sama soxna garab yi ngay dem di wuti ci sëriñ di ko ko jox mu ma koy sol. dama ne yëg naa ko. yamuloo foofu saa yi ma tëddee guddi nga may feeñu. ana loolu ban preuve nga ci am. preuve baa ngi baa ngi sa bopp bi gis nga yi ngay ay xoronog ak ay lu ne nga fi indaale xoronog baa ngi nii ah nga a wax foofu. xam génnal rek génnal. yu munoo bàyyi ay problème mu kër bu ñu waxee rek sama kër sama kër. génnal. sa mbaxana mi. waa ndokk jërëjëf merci loo wax baax na génnal rek génn sama kër. seytaane bi waa ba jiiba taskatu kër. baax na. ndox xati nga ma sa kër. demal rek demal génnal. xaaral ma dem man nga waa ba ji ba waaye yow. waaye fi li nga ko fii plan buñ teg ba desuwe ko voilà.